après pompe mais wax ma si inondation ban marché moo fi dox lu dul marché wu pompe ça fait beaucoup d'argent yaa ngi wax suuf suuf lan la du quartz c'est l'un des éléments les plus résistants lan lay lekk pale tous pompe yi la koy da koy lekk bu ko lekkee nga jëndaat pompe dire <laughs> quoi on est dans l'absurde quoi mm. ingénierie sax si biir indiwuñu ko quoi dañuy teg koo dem ñu ne pompe c'est le plus grand marché mais gis nga DER on compare des choses yoo xamante ne qui ne sont pas comparables comme maladie ay ñoo xamante nag war nañ leen woo ñu wax si affaire ndox bi parce que am na fi fii yaa ngi dégg inondation man du ma ko nangu je dirais excédent d'eau bu ñu mënul évacuer stagnation des eaux bu ñu mënul évacuer parce que taw man fekkee naa taw bu ëpp bi ah ñun bu ñuy nekk ndaw ak fëpp taw bi fooroon na taw bi amoon na maanaa c'est pas parce que ñu nee cent vingt six non affaire bi du foofu ñaata yoon ngay am cent vingt six ñaata yoon ngay am cent cinquante la récurrence devient un problème mais doo ko xoolee foofu dañuy xool rek Dakar nga xool comme l'a dit Thiam la responsabilité des différents régimes dakaar amoon na ay jamono pourquoi du taa mais da ngay xool dakaar et son environnement entourage ga tabax yi loon amul tabax yi bëriwuloon foo doon tourner da nga fay fekkee ak champ li nga fa fekk suuf donc dox bi daf koy absorbé suuf bi da koy absorbé ñu jël dakaar tabax ko ba pare fàtte la planification urbaine xalaatuñu ko. ñuy tabax rek doon nag ñoo xamante ne dëkk bi euh, fokk ñu waxante dëgg ko on persiste dans la bêtise mënuñu liggéey et on persiste dans la bêtise on fait les mêmes choses les mêmes erreurs nga jël dëkk boo xamante ne amoon na ay jamono day taw bu baax a baax a baax mais autour dëkk bi nga am zone de captage nga am fune nga am ay champs nga am lépp nga am lay ñaay nga am lépp nga xamante ne ndox bi du des suuf bi da koy da koy jël te suuf bi da koy jël parce que nappe bi soriwul da koy jël dëkk yow nga ñëw tabax yëpp teg ay goudron léegi wax ma goudron fu muy jëlee ndox nga tabax say tali tali yoo xamante ne da nga ko tabax mais tali yi boo koy tabax mais attends quand même ñun ay Dakar waa la ñu xam Dakar ay citadin la ñu ñun nag fii lañ judd Dakar 60 di fréquenter Dakar xam Dakar dem dans tous les pays du monde sans aucun complexe ñu xam Dakar Dakar bu ñu koy tabax tali boo koy tabax tali dafa am lu muy mel tali du du plat tali day wàcc ci côté yi day wàcc dëgg bu wàccee lan moo am si côté yi drainage drainage mooy lan dafa ay kanu ndox bi fa lay dugg ndox bi fan la jëm loolu mooy ruissellement des eaux de pluie parce que ndox bu wàccee foofu mu ruisselé bu amul lu koy capté ba yóbbu ko fu mu jëm day tag day taxaw xam nga force force ndox benn benn ba borom xam-xam moo ko maa ngi koy nuyoo bu baax a baax neen ma sew centimètre carré nga koy calculer léegi xalaatal ndox buy wàcc amul yoon amul fu mu jëm mun na war a stagner beneen ndox ñëw fekk ko fa ça crée une poussée hmm. yoon bi lu fa fekk da ay yóbbu mais yow bii tabax sa dëkk xanaa amoo plan xanaa yow da ngay ñëw rek tabax c'est-à-dire lu xew Sénégal c'est-à-dire ñun nandite yu ñu doonoon doon ay ndaanaan on est devenu de vrais cuune di tabax di tabax di tabax di tabax di tabax ba nga xamante ne na amul gouvernement di fay nit ñi di c'est inacceptable bés bu ñu amee deux cent millilitres bés bu ñu amee deux cent parce que euh, météo da lay wax météo da lay wax rek pluie fine euh, pluie fine pluie fort mais du lox yow après nga si ngay xam affaire bi bés bu ñu demee d'ici deux cent cinquante lu ñuy def dañuy dee ñun ñëpp mais dëkk da nga koy pro dëkk da nga koy projeté y a trois choses boo xamante ni fii dama koy toog di ko xool ma xool gars yi ku si nekk ñeme naa la duma ma ingénieur du ma dara si lii mais ñeme naa la. ku si nekk sa sa responsabilité premièrement dëkk boo koy tabax mais da ngay am plan da ngay indi carte da ngay indi carte dëkk ba xool ban mooy carte urbaine ban mooy carte réseau ba mooy lan mooy réseau eaux usées yoo xamante ne moom si kër yi lay jógee euh, ruissellement maanaam kii nga xool loo xamante ne c'est à ciel ouvert pour capter l'eau ak yu demee noonu eau de pluie boo xoolee loolu yëpp nga commencé tabax sa dëkk kooku mooy si technique ba nga def sa plan doo tabaxee noonu wax leen ma fan la tabax ba gars yi xalaat loolu amu fi amu fi ça veut dire c'est de la bêtise persistante moi je me demande est-ce que ce sont des géographes ou des ingénieurs de l'eau qui sont appelés pour contribuer à la à, à, construction des villes kooku benn la ñaareel ba tubier dans le cadre environnemental wax nga ko ñun ñëpp ñaa ngi neew taw mais on oublie la nappe phréatique xanaa nag si suuf am na ndox bu fekkente ne ndox baa ngi wàcc beneen ndox bi di yéeg quest loolu amul xalaat donc nous on a des gens yoo xam ne lan lañ di fay duñ xalaat beneen bi c'est nous-mêmes nous sénégalais waaw ñun population yi nag foog ñu wax ak ñun mais comme l'a dit Abdou xaat man gisuma fu ñu waxee ak nit ñi parce que foog ñu yàgg luñ moom nii ñun dañ ko moom du état rek te aussi nous foog ñu xam lan mooy canal boo xamante ne day jël ndoxu kër ga di ko yóbbu on vient de da koy yóbbu. canal boobu foog ñu xam ko ñu xam ban rapport la am ak canal googa quel est le rapport que nous avons avec ce canal lan lañ fa war a def wala lan lañ fa warul def est que mun nañ fa sandi suñuy kopp café est-ce que mun nañ fa sandi suñuy mba euh, suñuy suñuy mbuus est-ce que est-ce que es ce que est-ce que est-ce que nga xamante ne taw bi buy ñëw yan approche la ñu am donc sur trois niveaux au niveau technique au niveau environnemental euh, nu mu tudd environnemental ak taw boo xamante ne yàlla mu ngi koy baaxee ak leneen loo xamante ne mooy au niveau social sur les trois choses nous sont nous sommes absents pour la seule et simple raison que dëkk bi pensé wuñu ko dëkk da koy pensé une ville se pense da ngay ñëw rek ñu la Dakar smart ville mais c'est facile de dire c'est à la mode on dit smart mais mais ça se pense une ville on ne construit pas une ville comme ça on la pense on la pense et une ville c'est souterrain c'est sur terre si kaw ak si suuf les romains je l'ai dit la fois dernière dama koy wax di ko waxaat di ko waxaat chaque fois mais damay ni lool xam ne romains yi dañ ko dañ ko réglé il y a 4000 ans quoi 3000 ans ñun ñu war a toog fii di am problème sur une presqu'île je le disais la fois dernière et euh, euh, euh, lu mu tudd Bamba mu ngi koy wax si benn xaritam ki ma donne entièrement raison ba may nekk keroog la pointe la distance la plus longue il faut aller du lu mu tudd de la la la la pointe la plus avancée dans l'océan Atlantique mooy bii mooy Almadies beneen bi da ngay dem ba fale port loolu mooy 12 kilomètres tout le reste c'est entre 4 6 8 kilomètres nga daje ak ndox bi c'est une presqu'île niveau au-dessus de la mer pour nga am niveau mer fokk nga ñëw côté bi et quel est le plan qu'on a fait pourquoi les tubaab avaient réglé ce problème là on me dira qu'on n'était pas Il y avait 300 000, 150 000 Dakarois, jusqu'en 1970, 300 000 Dakarois. Nous sommes 5 millions. Légui waxma deuk bo xamantene créer il n'y a pas de création de système ou de conditions d'économie pour que nit ñi tok sen gox ñom ñew Dakar ñepp ñew deuk ci Dakar loy def hmm. de toutes les maisons qu'on est en train de construire comme on le plan de canalisation de ces maisons là donc gis da ngay dëkk kër bu cher Almadi jënd terrain bi ak des centaines kër gi milliardaires qui tu appelles des camions. donc ça veut dire quoi ça veut dire pour man on n'a pas de de planification urbaine. nous vivons sauvagement damay wax terme bi avec tout ce qu'on a on nous on nous vivons sauvagement. nous copions et de manière mais très mal ce qui se fait ailleurs. faut que nous am suñu ingénierie faut qu'on aille chercher les champions de l'eau on a fait on a fait le forum mondial de l'eau pourquoi parce que dañu xam problème mu ndox aujourd'hui kan la ñu invité on a invité que des hommes politiques sur les plateaux pour parler de problème affaire bi y a pas d'inondation c'est de l'excédent d'eau qui qu'on n'arrive pas à parce que nag boo demee Europe lan lan lay wax taw bi ça fait cinquante ans gisuñu ko ça fait un siècle gisuñu ko ça fait trente ans ko loolu lan lay wax ah loolu lan lay wax. ah boo ñëwee Sénégal aussi ñu ne la cent vingt six millimètres. boo ñëwee Sénégal ñu ne la cent vingt six millimètres. ça fait trente ans ñu ne la cent vingt six millimètres. nga ne ok très bien je suis d' accord. mais yow loo tabax si biir entre la dernière pluie qui date des années soixante dix soixante onze soixante douze bala la sèche avant la sécheresse de mille neuf cent soixante treize Dakar était conçu avec intelligence. Qu'est-ce qui s'est passé après Dakar a été construit sauvagement. Peut-être par noo xamante ne xalaat c'est ça la vérité. Nous sommes dans une jungle da ngay gis ñëpp dëkk boo xamante ne boo ñëwee ku la ku mu neex jël sa kër nga def ko jaune ki def ko vert ki def ko kii ba nga xam ça veut dire dëkk au moins mais ça veut dire y a une intelligence de ville Dakar du ko la am benn intelligence amul harmonie amul harmonie c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi alors on a une de construire a une liberté de ñëpp ne mais nga ñëw fii kii man mun naa nangu ñu am deux cent nu mu tudd suñu capacité de stockage suñu capacité d'évacuation parce que ndox dafa six cent ndox day ñëw doole rek la am hydrodynamique bu amee doole rek day ñëw lu mu fekk jël yóbbaale nga ñëw tabax sa canal nga teg benn mur foofu ndox bu ñëwee da koy daaneel mur la ak quelle que soit sa résistance da koy daaneel yow nga ñëw tabaxloo dara mais c'est ce que nous voyons. Hmm. ça veut dire que depuis les années 80 depuis que Senghor ak kii la libéralisation, l'arrivée des libéraux, en 2000, on a commencé à construire, mais on n'a pas fait de plan d'urbanisation. Mmh. Et du coup, on en souffre. Et ce n'est pas fini. Ça veut tey président de la République lu mu def il faut que mu woo gars yi woo borom bopp xam-xam yi ñu xam ndox woo leen ñu toog ñu xool la réhabilitation parce que fu ñu jëm nag la mise en cohérence non ñoom bu ñu toogee léegi zone bii. Charles bal ma quoi zone bii. mais ñun Charles fu ma dëkk. on est cent mètres de la mer. mais je te l'ai boo xoolee xaaral ma expliquer la la nouvelle euh, VDN la xam nga dafa am benn ñaari corniche. dafa am benn corniche. bu ne ci suuf. foofu les euh, concepteurs te disent que dafa am effectivement y a un système d'évacuation des eaux bu nekk ci biir ouvrage bi. boo xamante ne. dañ ko intégré ci biir ouvrage bi sauf que l'ouvrage dañ ko teg mu du reste des habitations. donc il y a un système quand même on a la permettre de prendre l'eau de ce point bas là. mais, mais de le connecter. mais, mais à Bamba, cet ouvrage pour que ndox mi mën a dem géej. Bamba il faut non seulement. les géographes les mettre là appeler les spécialistes. on ne peut pas. beneen affaire boo xamante ne calculer wu leen ko. Mm-hmm. ndox yëpp yëpp ndox yëpp taxaw. c'est de l'eau perdue. Ah, yëpp toutes ces voitures qui sont arrêtées elles sont assurées non. bien font les assurances. non bon je peux pas dire qu'elles font rien. Hmm. mais vous imaginez le nombre de casses par jour. que les assurances doivent régler ça veut que bu taxawee elles sont tout en faillite. mais mais mais bu dee bu dee jël jëloon nga. dama ne encore une fois bu dee bu dee jël bu dee jëluloo. xam nga non non attends boo jëlee assurance responsable civile c'est pour cela que je dis dans un <laughs> pays organisé xam nga man damay wax si euh, xam nga nag euh, ku nekk ak sa paradigme double moi je vis autrement xam nga yow am nga oto ñëpp am oto kii il a crevé deux pneus deux fois pour yegg si fii am na ku décédé bu amoon yenn assurance yi tey tu imagines ak loolu ak loolu ak loolu dëkk dafay évoluer je veux dire si on ne pense pas notre ville si on ne pense pas notre vie qu'est-ce qu'on fait on subit et nous on est en train de subir tey toutes les assurances en principe boo nekk directeur assurance directeur général assurance sa bopp war na metti parce que boo xoolee ñaata oto nga assuré ñu war a ñëw que ñëpp ñëw lundi fekk la ne le bon nam la moi j'ai fait euh, assurance tout risque patati patata affaire yooyu nga war a am sans demande tu fais quoi mais tu fermes boutique. non y' a léegi dis-moi quel est le quel est le. quel... Charles y' a la réassurance. non non wa je maintenant qui est la la réassurance. Oui, comme le réassure... non qui est le réassureur. les assureurs ne perdent non, jamais. Charles. non non vous euh, euh, encore que ça c'est bon quand tu vas ailleurs parce qu'ils sont dans les banques et tout Sauf ça. quand il y a un non, gros, je dis, attends, nos assureurs pour l'essentiel ne sont même pas d'origine de chez nous xam nga donc ça veut dire est-ce que vous comprenez jusqu'où on peut aller. est-ce que vous comprenez jusqu'où on peut aller est-ce que vous comprenez que par exemple toutes ces voitures qui sont en qui sont tombées en panne et tout doivent aller chez les mécaniciens xalaatal koo xamante ne heureusement que xale yi ñu ngi vacances xalaatal que ñooñu war a liggéey amuñu oto am fu ñu dëkk ak ñu demee noonu est-ce que vous savez quelle est la succession de désagréments provoqués par des gens yoo xamante ne dañ leen di jox dëkk bi pour ñu am intelligence tabax ko et qui n'en font absolument rien ce que je dis là nañu sant yàlla inondation bañ am parce que bés bu amee ñu ñëppay dee li c'est de l'eau qui stagne de l'eau qui ne part pas parce que la ville n'a pas été pensée elle a été construite n'importe comment les gens ont fait n'importe chacun à sa maison mais galère baa ngi nii et ça c'est chapeau il faut nous pour le faire